yaa ngi nganda ngandalu di fëgg dënn tey ma tëgg si lu ngandaluy fëxa sa ndënd ñun ngeen di gett dañuy tëgg sëbëm galal ñi ñoo ko yett ñoo di tëgg ndëndëm rab son daañu rab taay rab dama damay rab daayif dama ci doon daanaan like Mrs Elliot yaa ngi daw te daba gooma donte damay yot ngir nga jot ci pist bi foog sa Elliot sinon nga wàcc jaww ji wekki Elliot da ngay keleng-kelengi weccin nga ci boss damay xotar xotari boy mi am the boss K6 from teenu zam zam K6 ndey ma daawos k AK6 Tienu Zamzam